waaw sama gaay abu sama Samba bu Yoff ak Dragon bu Jël Ibrahima Dior ñaan ñoo nekk ci biir géew bi bu Yoff D'accord. va yaatal après Inch'Allah. Dragon ak Abou Samba numéro 2 ça c'est mon mon frère Amdi Moustapha coordonnateur de Serigne Mourignan manager président de Kiri aussi Amdi Moustapha waa ju am cër ci làmb que di ci Dragon ak Samba Dragon Abou Samba Dragon Dragon Jalibra Machor Abou Samba écurie Yoff Dragon Abou Samba attention arbitre bi sifflé na génn seen diggante Abou Samba mi ngi demee weet Dragon attention roofoo na ñu yàggul Dragon jël na ko ci suuf ah, Abou Samba daw na ak moom daan na ko Abou Samba daan na Dragon Abou Samba bu Yoff daan na Dragon combat bi yàggul matul une minute quelques secondes la Abou Samba bu Yoff daan na kii di Dragon C'est le mercredi 16 juin 2021 nous ngi ci nationale le comité national de gestion c'est mo organisé Abou Samba Mordan, daan jël bu des ci di dragon combat bi yagul Abou Samba daan ko jël Abou Samba daan dragon daan le ko jël Abou Samba moo daan Dragon